Thank <laughs> you. en ce jour de mardi 16 avril 2024 nous ñu def dara lu dul yi nga hommage bi nga xamanteni ki li di Touré dal dina koy rendre ki nga xamanteni moy Sidi May mu bok ci li nga xamanteni moy la presse sénégalaise ñew ñak Ben, ci ay pliem don Ben icône bo xamanteni ci walu kërum taskatu xibaar la ginnaw bi nga xamanteni li di këru taskatu xibaar yi nekk Sénégal ñom ñoo ñew ñak tay ben ci seen ay plié mu donon ben icône doon benn jëmale ko ci li nga xamante ni turam daf koy yóbbu ci li nga xamante ni tey suñ ko dippee dañuy tudd un grand professionnel de la communication bi nga xamante ni kii di mbay si di mbay bi fi nekkoon yàlla jël ko te muy noppalu foofu ca cimetière Yoff maanaam turam loolu lay joxe muy un grand professionnel de la communication ginnaaw loolu kii di Diadji Touré bi ko rendre hommage mi ngi xamal ni que daal ñoom ñaar seen yoon mi ngi croisé wu boulevard de la République fi nga xamante ni foofu la ancienne maison de la RTS nekkoon ginnaaw bi nga xamante ni kii di si Sidi Mbaye mi ngi soog a et si radio. rajo bi alors que moom mi ngi doon dem foofu nga xamante ni pour la voix de l'allemagne à tout 1978 ginnaaw loolu nag benn yoon rek la ñu partagé di plateau bi foofu ci rajo bi muy présentation journal parlé de 13 heures ginnaaw bi nga xamante ni en 1981 foofu ci rcs ginnaaw ginnaaw loolu nak si la dem fofu ci télévision bi mom ci bopam si la resté foofu ca rajo bi ginnaw loolu la occuper li nga xamanteni moy fonction li animé li nga xamanteni moy mooy brillamment ay chronique ginnaw loolu nak lepp lo xamanteni suivre na ay mission yo xamanteni diplomatique la mom bu mu quitté li nga xamanteni moy Boule en 1989 si lañ ko affecté Fofo ci Belgique muy en Bruxelles ak ki nga mon ni moo nekkoon ci fonction deuxième conseiller chargé de la culture et de la communication ci l'on a ginnaaw bi nga xamante ni lii di CESTI moom ci suivre lii nga xamante ni enseignement vacataire am ginnaaw loolu la daje ki nga xamante ni mooy Mbaye Sidi Mbaye mu donnons la dernière fois ginnaaw a nag si la dem julli foofu nga xamante ni mosquée Ibadou bu nekk foofu ci avenue Malick Sy ginnaaw loolu nga grand place am le la doon qui occasion boobu nak la ko offrir li nga des moy ñaari ouvrage yo xamanteni réalisé nos jëmele ko ci ki nga xamanteni moy président Senghor et le pèlerinage à la Mecque ginnaw bi nga xamanteni amna ay cadeau encouragement yo xamanteni yëkëti won nako jëmele ko ci domam bi di Birahim ci li éducation ak yar bu baax bi ko jox donc ci le le sukkandiku jaar la ci ben performance bi nga xamanteni ay mérite personnel en tout cas muy hommage bi nga xamanteni ki kii di tour Touré rendre nos coups qui dit Mbaïsi Mbaïdi, un grand icône, un plié de la presse sénégalaise, un grand professionnel de la communication. C'est quoi dara lu di ñaan subhanahu wa taala daal di koy accueillir Foufunga nga xamante ni bi barakati yi saydul ak li nga xamanteni moy intersection bi nga xamanteni tay mo réunir sen commun di seen wasila di Cheikh Saad Abi wa bi en tout cas muy hommage bi nga xamanteni dal ki di Diadji Touré dal dina koy rendre hommage ki nga xamanteni moy mbay Sidi nga xamanteni c'est un grand icône un pilier de la presse sénégalaise bi nga xamanteni ni na Aduna, ñuy rob ko djébal ko boromam demb fofu ci cimetière Yoff ginnaw lolu désormais fofu moy don demeureum éternel Thank you.